bokk jullit di bokk taalibe yi ñoo ngi sant yàlla sunu borom di julli ci yonenteem bi sallallahu alayhi wa di sant Cheikhul Xadim bu loolu jàllee nag ci jamono ji nga xam ne sunu weer yi ñun taalibe yi di weeru safar nga xam ne weeru ngëneel la weeru yiw la ci jamono bi nga xam ne ni yàlla def na mu taru ci laay yëkkatee nag sama xalima ngir feeñal ak cant ak it ngir feeñal bégte mi nga xam ne moo muur sama xol te it moo muur xolu bépp taalibe taalibe koo xam ne nii sab xol bëgg sëñ Tuubaa ma nga ca ma yëkkati nag sama xalima bind ci ay béyit yoo xam ne dañ koo tënke ci limu arafi Tuubaa waaw te mooy ñaar fukki béyit ak juróom-ñett ndax loolu mooy li mu arif Touba Touba gi nga xam ne nag ci la euh, ñuy amele bisub cant boobu at mu ne waaw nga xam ne bis boobu ñu ngi koy tar mooy ñu ngi koy waajal di ko séntu ci biir weer wi nga xam ne moom la ñu rekk te mooy weeru safar ñu koy waajale di ko séntoo di ko tar ko ak cofeel ak ku mbëggeel ñoo ngi ñaan nag yàlla sunu borom tabaraka wa taala mu nangu bayit yi maanaam mu nangul ma bayit yi ci barkeb Seexul Xadim bayit yi nag fi la tàmbalee mooy ma tastahal alayna shahruna safaru xallat bi arjai tuuba kulliha busharu waaw saa yoo sunu weeru safar dafa taru ci nun mooy dafa feeñ euh, Touba gépp maanaam wàlli Touba yëpp Touba gépp daal ak ay wàllam day fees dell ak mbégte wastaqbala annaasu yowma alfadli walkarami yowma alqira yowma tullat diiku walbaqaru su ko defee nag nit ñi dañuy teertoo bis boobu nga xam ne bisu ngëneel la bisu tapp maanaam di bisu tedd nga di bisu berne nit ñi dañ koy teertu di ko waajal di ko séenu bis la boo xam ne bu ñëwee ganaar dañ koy tër di ko rendi nakit dañ koy tër di ko rendi min ajli taxqiqi shukrillahi jalla ala qad kaana maggal fa jallal yowmu wal qamaru màggal nag li tax mu nekk li ko tax a jóg rek mooy euh, dëggal ak cant maanaam fexe daal ba def ak cant ci anam gu wér cant goo xam ne da koy jëmale ci yàlla moo tax nag bisu màggal bis la bu rëy bu mag weeru màggalit weer la bu rëy bu màgg lama ra a cheyqu anna shukra yajizu an taxqiqihi waxdahu naada fajal basharu sëriñ bi nag di Cheikhul Xadim bi nga xam ne gis na ne ne cant googu nga xam ne moom la bëgg di amal di ko def mu jëm ci boroomam cant googu bi nga xamee ne gis na ne moom sëriñ bi dafa lott ci man koo amal moom kese boobee nag ci la wootee nag moom sëñ Tuubaa ba mbootee nag eh, nit ñëpp daal di ñëw fa qaala man sarrahu bishri fa yowmu magal niltul mana fiihi min rabbi lahu alqadru ba ñëpp ñëwee nag mu daal di wax ne képp koo xam ne sama mbég sa mbéga na nga xam ne bisu bis bi bisu fukki fan ak juróom-ñett te mooy bisu màggal gi eh, bis boobu ci laa amee li ma doon bëgg ci yàlla sama borom yàlla mi nga xam ne dogal bépp ci loxoom la nekk ci bis boobu nga xam ne mooy bisu màggal di fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar ci laa amee li ma bëgg lépp ba na kon li yashkurillaha fi ma xuzzu min niamin ahlihi bi dabxi mawashin ayuha zumar ba na kon nag yéen ñi nga xam ne yéenay sama ñooñ na ngeen ma ci santale yàlla ci li nga xam ne yàlla defal na ma ko nga xam ne am naa ko ci bis boobu ci ay xéewal ni ñuy ni nga xamee ne nag noonu lañuy ñuy defee ci cant googu nga xam ne wax naa ko ngir bëgg ngeen jàppale ma ci ni koy defee nag mooy ñu euh, rey maanaam ay juru kër waaw ñu rey di ko tàmbale ci ganaar ba ci gëléem comme na ma ko waxee woon rek te mooy min ad dajaajati xatta asmanil jamali li yasbaxil ahlu la yubqi wala yasu waaw moom daal yéen ñi sama ñoñ bu leen bu leen desal li ko tàmbalee ci ganaar ba ci gëléem ga gën a li ko tàmbalee ci ganaar ba ci gëléem daal lu ci waay man bu mu ko bàyyi moo ñu nang ma ko nang ma ko defal ci bisu màggal màggal gi ngir santale ci yàlla wa anhu yunqalu mahma kaana ithnaani ay safaru ci sëriñ Tuuba la ñu toxale wax ji te mooy sëriñ bi nee woon foo fekk ñaar ci bërëb bisu màggal gi ñëw fa kaana za qaa'iman bil idni mujtahidan kama li axara ihmalun kasal xawaru bi màggal gi ñëwee nag ci fonk màggal gi moom maa taxaw ci ndigal li ko sëriñ bi digal te mooy sant la ko yàlla ci bis bi di ci di ci farlu keneen ka ca des moom mel na lu ko négligé amuk tayal bañ caa taxaw nee na foo ñaari ñu mel noonu kii fonk ko ka ca des fonk ko la budda min sabqi man bil isni qaama man anhu yaxfulu kullun kaana yantasiru waaw mun te ñàkk ki nga xamee ne taxaw na ci ndigal li fonk magal gi farlu ca euh, yow yor say bët di xool da gis ne koo kii mooy jiitu maanaam moom moom moom moom mooy raw keneen ka nga xam ne defut loolu waaw ba tax na nag kon ñun ñëpp ñu ngi euh, xaar bisu magal gi ñëw ba tax ñu am ci taxawaay ka annama al yawma ayaamun li xirsihimu ala alxadimi fahahum fiihi intasaru magal gi nag booy seetlu dafa mel ni ay màggali màggal la maanaam ci jamono jiñ toll nii nekkutul di yem ci benn bis kese ay bisi bis la ndax taalibe yi xër gu xër guñ xër ci sëñ tubaa moo waral loolu waaye nag ñooyee ndax ci bisu màggal googu lañ am lañ bëgg lépp maanaam ci lañ ko am maanaam ci bis boobu la ñu amee ak gañe ak tuufu ci lépp luñ bëgg yuqiimu fi kulli yawmin qablahu nafarun min almuridina yawman ismuhu safaru bis bu nekk avant màggal gi ñëw avant bis bu mag ba di ñëw bis bu nekk rek ay ay kuréel ci taalibe yi dañuy taxawal bis su ko su defee nag bis boobu nañ koy tuddee nañ koy tuddee nag mooy safar mooy jamono biñ toll nii rek nga xam ne dañ naan safar safar kenn ku ne rek di di def sax safar te bis bu mag bi sax ak seegul nga xam ne uh, sawtul qasaidi wal azkaari indahumu yaalu kada shatahatul qawli tantashiru waaw ginnaaw amal nañu ay bis nag ngir waajale ko bis bu tedd boobu tax na foofa dem ci bërëb yooyu ñu koy amale ngay dégg xaside yi muy jolli di tudd yàlla waaw di gisit nit ñi di def ay jël mooy di wax wax yu yéeme rek maanaam ci sëñ bi wax waxi daan ko dal min ajli ixyaai haada al yawmi yaxduru fi tuuba malayinu asqasiluhum kasuru ngir dundal nag bis bi nga xam ne mooy bisu màggal di fukki fa ak juróom ñett ci weeru safara loolu tax na Touba ay millions personnes dañ fay ñëw di fa daje loolu nag lim bu lim bu bëree bëree bëri la mbooloo mu bëree bëree bëri lañ fa fiihi rabxun li ahli lbayi ma lahum xasaaratun aw bawaarun xiinama tajaru màggal gi nag euh, bis la boo xam ne nii euh, ñëpp ko yëg waaw maanaam ñi nga xam ne dañuy yëngatu ci wàllu commerce di jaay euh, duñ ci perte benn yoon waaw dañuy am bénéfice seenum jaayit maanaam du lamm wallahi lawla xadimul mustafa sanadi wa yowmahu saada suul xaali wal kadru maa ngi wàcc yàlla ne bu dul woon sëñ moom mi nga xam ne mooy sama wéeruwaay di sama sang bu dul woon sëñ tubaa bu dul woon di bisam boobu nga xam ne mooy bisu màggal gi kon day làmbaay ñaaw kon mbir dana ñaaw kon nax-nax day daal di am fahuwal muxiisu malaazul kulli ahmaduna ma waladat mislahu unsa wala zakaru sëñ Tuubaa daal mooy ki nga xam ne nii mooy xet li ñëpp mooy wéerukaayu ñëpp moo tudd Ahmadu di sunu Ahmad mooy ki nga xam ne jigéen jurul ku mel ne moom góor jurul ku mel ne sëñ Tuubaa wa qul liman raama mithla shayqi rumta muxaalan kuffa an za fa fihi alxumqu wax waxal ki nga xam ne day jug ngir wut di sàkku ku mel ne sëñ Tuubaa nee ko yow day yaa ngi sàkku lu jomb kon nag bàyyi li ngay def waaw bàyyi li ngay def Euh, loolu yi ngay wut di ko sàkku te muy lu jomb ah loolu wut gën koy wut ak sàkku koy sàkku loolu ak ndof rek lay wane maanaam danse rek lay wane kon nag ba ko wóorul law alima annaasu anna allaha fi yadihi alqaa zimaam alwara ilayhi labtadaw bu fekkoon ne nit ñi xam nañu ne ci loxol sëñ Tuubaa ci la yàlla nos ruu yëpp maanaam ci la nosu mbindéef yëpp nekk bu ñu xamoon loolu xam ne nu wér wér kon ñoom ñëpp ñu ñëw njëkkantoo si ko nekk ci wetam bi xubbihi wa bi taslimi l umuuri lahu ma al muwalaati nicma sayidul rasul bu ñëwee nag def mooy dañ koy bëgg jébbal ko seen biir féeteeg moom jébbalu ci moom moom sëriñ bi day di Cheikhul Xadim ab sang la boo xam ne ni wéeruwaay la amul morom nicma lasi fii safara qad xaaza kulla munan wa nicma daa in li shukrin fiihi naftaxiru waaw nga xamee ne nii lii mu am ne eh, ki nga xamee ne ni mooy Serigne Touba nga xam ne li mu am lépp nee na ci weeru safar bi la ko amee kooku day amul morom moom day mooy ki nga xam ne moo nu woo nu santale ko yàlla ci biiru weer boobu nga xam ne fukki fan yi ak juróom-ñett ca la nekk te mooy weeru màggal nga xam ne ñun dañ koy pukkóore ñun dañ koy ndamoo wa fiihi al mislu bayna annaasi doona riyan tawadudan fiihi maata al xeqdu wal batru ci bisu màggal googu ci ngay gisee ne nit ñi daal dañuy bëggante ci seen biir te bëggante googu ñuy bëggante du doon ak ngistal mooy lu wér-wér lay doon ci ñoom mu mel ne kon ci bis boobu ak mbañeel ak euh, di weddi eh, xéewalu yàlla ci bis boobu day mel ne loolu dafa daal di dañ dafa mel ne maanaam lu dee jeex tàkk fii fiihi ma tashtahihi nafsu naakulu min laxmi tuyuuri fa maggal kulluhu dafaru waaw ci bisu màggal gi nag ci lañuy lépp loo xam ne rek bakkan dana ko bëgg maanaam maanaam bakkan dana ko neexloo euh, ci màggal kooku ci ci ci bisu màggal gi ci lañ koy jëfandikoo ci lañ koy lekkee lu mel ne yàppi njanaaw yi yàppi picc waaw kon daal màggal lépp rek moom moom moom ak tuufa lépp maanaam ak gañe lépp maanaam daal ak am li nga bëgg la ne am ama taamu taamun fiihi maxfiratun li aakilihi kama qad qaalahu alxabaru kon nag dañoo wax ne ñam ñam bi ñu togg ngir màggal gi ñam la wax ne Sëñ Tuubaa nee na woon ku ci xéwle rek yàlla dana la jéggal ci bis boobu ba ba keroog bis bay del si déwén kon nag eh, yéeme na lool amul moroom ñam moobu nga xam ne njéggalu ak njéggal ma nga ca eh, lu jëm ci ñi koy lekk comme niñ ko waxee rek nga xam ne noonu la ko Sëñ Tuubaa waxee woon nixmal xadiimu borom jaareem ni daa uka mas moo on ilayhi jami on naasi yabtadiru waaw amul moroom moom Sëñ nga xam ne mooy borom jaareem woote bi nga xam ne woote nga ko te mooy woote màggal gi woote la boo xam ne ñëpp dégg nañ ko ñëpp da danañu ñëw wuy ko ñëpp dana ñëw teewe ko te mooy bisu màggal gi di di di bis bi nga xam ne yaa ko woote ngir ñu santale la ci yàlla ni'mal muhabbu borom tuuba muhibbuka la xawfun alayhi wala xuzunun wala naqaru waaw sëriñ bi daal amul borom sëriñ tuuba moom mi nga xam ne mooy ki ñu bëgg waaw nga xam ne mooy borom tuuba waaye yow mi nga xam ne yaa ko bëggit yow yow maanaam ki nga xam ne moo la bëgg yow Sëriñ Tuubaa kooku day du am lu muy jàq euh, ci ëllëg gu mu jëm di yomal xiyam waaye àddina siit lu mu fi weesu rek léppam day jag léppam day baax du am benn naqar salli wa sallim ala muxtaari rahmatina wal ali wa sahbi fihim sayidun umru kon nag yow yàlla noo ngi ñaan nga def salaatu ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne yërmale ci nun def ko ci saxaaba yi def ko ci ñoñom def ko ci saxaaba yi saxaaba yi nga xam ne eh, bokk na ci ñoom am na ci ñoom ku ñuy wax sayduna omar nga xam ne ab sang la bu kawe maadaama shukran wa taaziman wa yowma xiran 18 safar yowma jaa al faxru wal bashru ñaan gi nag ma ñaan nga xam ne mooy yàlla def salaatu wasalaam ci yonent bi salaatu wasalaam ak waa këram ak ñooñam ñaan googu yàlla na ko yàlla nangu li fekk 18 eh, safar mi ngi doon ak cant mi ngi doon ak màggal mi ngi doon bisu berne mi ngi nag bis bis boo xam ne rek ndam la mi ngi ngi doon bis boo xam ne rek mbégte la ci eh, taalibe yëpp li fekk loolu mi ngi am na rek yal na yàlla def salaatu wasalaam ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon lii ak xasida la goo xam ne seen mbokkum taalibe di Mouhamadou Awa Balla mu Sëriñ Moustapha Hafsa moo ko doon def jëmale ko ci weeru màggal bi jëmale ko ci bisu màggal gi te mooy fukki fan yi ak juróom-ñett ngir barkeeloo ko ngir feeñal mbégteem ci e, màggal gi ak it ak cofeelam ci sëñ Touba. comme ni koy waxee ci njàlbeen gi rek ñu tënk ko ci arafi Touba nga xam mooy ñaar fukk ak juróom-ñett. boo ko doon aadaat di ko lim ñaar fukk ñaar fukk ak juróom-ñett di 28 mu nekk ñaar fukki biir ak juróom-ñett kon nag yàlla yàlla na nu nangul yàlla defal nu nu fekkewaati at yu bare bare bëri. ci wér ci man ci tal yàlla nangul taalibe yépp assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu alhamdulillahi alkarim silmilan ala sihadi bi furudin wa sunan sakartuhu li an qad sahani li watani bihi nafa ma anfani